ni euh, liggéeykatu o yi ñu ngi koy faral di jànkonteel ni ñuy gérer euh, ndox mi le file ci Sénégal accord bi nga xamante ni ñoom signé woon nañ ko ak état wu Sénégal euh, respecté wu ko daañu ko waxtaanee facture yu chères yi ñàkkum ndox bi nga xamante ne actuellement askan wi moom la ñuy daal di dund mais jafe-jafe wala incompréhension bi nga xamante ni amoon na ci bi état bi ne dafay fay tranche sociale bu benn facture u Sénélec tamit tamit euh, Sen'Eau tey jii ñu daal di koy fas yéene waxtaanee ak élagie Hadji Baba Ngom di la nuyu di la dalal jàmm. Euh, merci Ndeye Comba maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm di dalal jàmm waa rajo di nuyu tous les auditeurs de mi FM. voilà ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité El Hadj Baba Ngom fan yi rek def ngeen ab assemblée générale assemblée générale boobu doon ngeen ci wax wàllum césure ci diggante CNO ak SDE euh, ban jafe-jafe la am exactement. waaw ah, waaw merci euh, bi nga ma permettre tamit ma mën a expliquer. Mhm. wàllu césure bi. waaw ku nekk xam na ne euh, SDE moo fi newoon nekkoon ak ay travailleurs am yàlla def ñu def appel d'offre Sen'Eau jël ko. Mhm. mais Sen'Eau bi mu jëlee euh, entreprise bi dafa fekk ne dafa am lu bare loo xamante ni SDE daf ko yoraloon ay travailleurs mhm. mu doon le fonds commun de placement mu doon le fonds de promotion de l'habitat sociale mu doon le fonds sociale ak yu bare bare bare yoo xamante ne seen o daf ko yoroon si wàllu saisir boobu nag ñun daf ko yoroon daf ko yoreel travail liggéeykat yi maanaam SDE moo leen ko yoreloon seen o donn ko SDE donn ko waaw waaye ñoom bi ñuy dem bàyyiwuñu ko fi dañ ko yóbbaale bi ñu paree nag ñu ne ñoom ak seen o nañu toog ñu waxtaan seet lan lañu ñu yoral travailleurs yi ñu rapatrier ko mhm. te yaakaar naa loolu bi mu amee ñun dañu waroon toog les ñu fekke ko mhm. bi ñuy def saisir bi mhm. travailleurs yi toog mhm. li ñu leen ameel ñu xam ko bu ko defee ëllëg si tamit du am problème waaye ñaari entité rek ñoo toog CGE bi mu doon CNO. Mhm. ak SDE. Mhm. loolu tamit nu ñaawlu ko. mais ban problème parce que maa ngi gis ngeen mentionné ay heures supplémentaires ay congé déplacement ak ay fonds euh, ak tamit wax ngeen si wàllum capitalisation huit pour cent d' action yi nga xamante ni waroon nañ ko jagle liggéeykatu CNO yi est ce que mën nga ko expliquer euh, ñu comprendre Baba Ngom. dëgg la effectivement ñoom bi ñuy dem dafa am ay congé yoo xamante ne waa SDE dañ ko yoraloon travailleurs yi ñu waroon leen ko fay. Mhm. ñoom am na benn parti bu ñu ci fay waaye des na lu bare ak contestation yu dul jeex. Mhm. parce que tamit les heures supplémentaires ñoom tamit am na lu ñu ci fay am na lu ñu ci fayagul. Mhm. les déplacements yi xam ne ñoom ñoom euh, nit ñi ñoo ko defoon bi ñu fi newee tamit ñoom dañ ko waroon a fay te fayuñu ko am tamit ay tâcheron ñu bare ñoo xamante ne ay yeneen i entreprise mhm. annexe yoo xam ne dañ leen yoralee seen xaalis te ba léegi jotaguñu ci. loolu tamit lu mel noonu la ñuy waxtaanee ñoom. ak Sen'Eau bu ko defee xaalis boobu ñu répartir seen parce que kon leeroon na ci diggante SDE ak Sen'Eau que yii ngeen di laaj dañ leen ko war a jox dañ ñu ko war a jox waaw waaw waaye mat sëkk waaw dañ ñu ko war a jox ba mu mat sëkk waaye nag dafa am loo xam ne joxe nañ ko mhm. am tamit loo xam ne joxewuñu ko lan lañ joxeeg luñ joxewul waaw si wàllu euh, nu mu tudd congé yi mhm. parce que da ngay gis nit koo xamante ne dafa am cent jours congé ñu fay ko trente jours wala trente cinq jours ne dafa am ay dispositions de la loi lu mu wax ne boo congé bu matee trois ans defe naa mu ne waratuloo ko fay. Mm. te yaakaar naa yooyu du congé yu mat trois ans wala trois ñoom daal des fois ñu def lu leen neex loolu moo tax la ñuy ñaawlu ne nun dañu waroon a fekke fekkewuñu moo tax def nañu lu leen neex ci congé yi déplacement yi ak heures supplémentaires yi. Mm. waaye terewul tamit les travailleurs du ñu accepter ils n'accepteront jamais que ñoom ñu dem ak sunu xaalis un franc Mali. SDE du ko yorul travailleur yi Sen'Eau yi. mais yéen lan mooy seen jafe-jafe yéen liggéeykatu Sen'Eau yi. ñun amuñu benn jafe-jafe par rapport à quoi que ce soit suñu jafe-jafe yëpp mu ngi nekk rek si dans la transition. amoo leen benn jafe-jafe. déedéet transition bi tout est rose yéen liggéeykatu Sen'Eau yi. non non non tout n'est pas rose. parce que ñun ci transition bi. ñun dañ si gisul suñu bopp. parce que si transition entre la SDE ak Sen'Eau yi foofu la ñu waroon a gis seen bopp. Mm. ndax tamit dañu réclamer mm-hmm. pour cent. nu bëggoon quinze pour cent yàlla def nu am huit pour mm-hmm. Mm-hmm. mais huit pour cent yooyu ku nekk déggoon na ñun bi ñu doon wax ñu ngi koy euh, am nañ fonds commun de placement qui avoisine les trois milliards cinq cent ñu ne ñun bu ñu paree suñu huit pour cent yi mu ngi représenté quatre cent quatre vingt millions mm-hmm. quatre cent quatre vingt millions yooyu nag la ñu wax ne waa SDE ñoom ñoo ko war a jox par le compte du fonds commun de placement waaye lors de notre réunion du conseil de surveillance mais ñoom li ñu fa wax daal dafa tey xel dañ ne ñoom fonds commun de placement SDE la ñu yor yaakaar naa mënuñoo génn xaalis di ko jox les travailleurs de Sen'Eau mhm. ñun les quatre vingt dix pour cent yi ñu yor travailleurs Sen'Eau yi ñoom ñoo ko yor kon nag nous voyons mal. Mhm. que ne loolu warul mën a nekk. mais mais mais yéen bi ngeen jógee ci assemblée général lan ngeen fa tënkee fas yéene ngeen yëngu-yëngal def ay mouvement d'humeur wala lan. non day dans un premier temps. toog ngeen waxtaan. bi nu waxtaanee assemblée général waaw ñun dañu am mandat. ñu ne ñun man principalement man leaderu coalition CITES. Mhm. Baba Ngom. Mhm. dañ ko jox mandat ne ko mu dem SDE. boo demee SDE si fonds commun de placement bi. Mhm. ñoom nañu ñu jox sunu xaalis nu dem capitaliser les quatre cent quatre vingt millions. beneen bi le euh, nu mu tuddati solde de tout compte. cinq pour cent yi nu am SDE. le solde de tout compte waa dañ ne compagnonnage bi arrêté nañ ko bëggatuñoo bokk ci capitalu SDE dañu bëgg li ñu amee la SDE amee yépp mhm. nañ leen ko jox mhm. parce que tamit sëy mhm. bu ñu demee ba sëy bi nit ñi wóolanteetuñu mais nit ñi di war nañoo nag tas sëy bi ku nekk yóbbu jël say bagage dem sa kër ñun nag foofu lañu ñu toll te mandat boobu la ñu am te dañu wax ne à partir de le lundi incha bi dina dinañu def correspondance jox leen ko ñoom ñu gis ko ñu lancé nag euh, wax ko président de la république mm-hmm. wax ko le ministre de tutelle wax ko le directeur de la SDE en la personne de Simana que ne les gens léegi décidé nañu ñu tas sëy bi entre ñoom ak les travailleurs de Sen'Eau tas sëy bi maanaam ci naka mooy sunu capital 5 pour cent yi noo amoon si capitalu sd waaw dañu koy rek dañu koy récupérer mooy le solde de tout compte dans le capital ñu delloon na sunu xaalis. léegi ngeen récupérer ko pour lan. ñu récupérer ko parce que. da ngeen koy séddoo. bu ñu ko bu ñu ko récupérer nag. travailleurs yi ñooy wax naka lañ koy def séddoo. Euh, ñoo xam naka ndax dañuy ubbiwaat beneen entreprise wala dañuy def leneen wala dañuy def leneen ñoo xam naka lañ koy def waaye daal ñun. jox nañu ñu mandat ne les cinq pour cent du solde de tout compte bi nu am SDE nañ ñu ko delloo. léegi après da ngeen di continuer di liggéey biir SDE euh, Sen'Eau yéen. noonu dañuy continuer di liggéey biir Sen'Eau waaye ba waa SDE bu ñu ñu ko joxulee. di ñu leen assiégé. dem dem euh, VDN ñoom ñu ngi foofu Eranor dinañu leen assiégé ñu jox na suñu xaalis te lu luñ si bañul tamit travailleurs yi. ñu bañ kon da ngeen fas yëngu-yëngal bu baax. waa yéen waa Sen'Eau. dañuy yëngu-yëngal les travailleurs de CNO ex travailleurs de la SD. de la SD. waaw loolu moo tax. donc ah, ah, da ngeen di laal fee la mais ñi dem est-ce que tamit mën ngeen am foofu gain de cause. waaw mais parce que ñooñu une société de euh, euh, euh sénégalaise la. une société sénégalaise est par la par le Sénégal. kon nag loolu moo tax ñu wax ne euh, le président Macky dañ koy boole mu jàppale euh, travailleur. Euh, ex travailleur SDE. Mhm. wax tamit le ministre de tutelle Serigne Mbaye Thiam mu jàppale ñu ñu wax waa CNO tamit. Mhm. ñoom ñi xam ne saisir bi ñoom ñoo koy dox. Mhm. ak euh, waa SDE ñoom tamit ñu jàpp si. parce que tamit liggéeykat yi mouvement d'humeur bu nu am day yëngal. CNO. Euh, au lieu que muy a yëngal SDE. mais mais euh, Baba Ngom. ci ci transition bi lan la leen njiitu réew mi waxoon ne dana ko def te defu ko. ci transition bi diggante euh, Sénégalaise des eaux ak euh, Sen'Eau. non non ak Suez. Euh, loolu. Hmm. ñun sur le plan social. waaw li njiitu réew mi waxante woon ak travailleurs yi yëpp. def na ko def na ko def na moo doon. waaw ñun bi ñu paree ak ministre bi sept pour sept ministre bi def na woon sept virgule cinq pour cent. Hmm. foofu la mënoon yem. Hmm. bi ñu demee suñuy responsable secrétaire généraux des centrales dem seeti ko. mu ne dina ci tegaat bi mu si tegee pour cent nu am huit pour cent huit pour cent la SONES ak euh, ONAS am trois pour cent mu doon onze pour cent du capital de o loolu les travailleurs de SONES euh, ONAS ak o ñoom ñoo ko séddoo. kon président li mu waxoon ak li mu leen digoon def na ko. li mu leen digoon euh, def na ko. léegi seen problème bi des c'est entre SDE ak o c'est entre la SDE et Sen'Eau si césure bi. Mhm. loolu daal la ñu bëgg li concerne les travailleurs. nun travailleurs yi ñu delloonu lanu moom la sa des nag ñoom seen i différent yi ñu am ñoom nag bu boobaa ñoom ñoom ñu réglé ko mais yéen daal bëggoo leen liy métti féete seen côté déedéet liy métti warul féete seen côté parce que est-ce que jàppoo leen des seen côté la nar parce que noo si gën a néew doole ñaari ñaari euh, ponkal bu ñuy xeex mhm. bu bu ñu mbëkkante mais yaakaar naa ñi nekk si suuf di jéem a atte ñooy ñooy sonn waaw est-ce moo tax ma ne est-ce que jàpp ngeen li ngeen di laaj danañ leen ko jox incha allahu rabbi Ah. parce que am nañu ay moyens te dëkk bi dëkk naka ngeen ko fas yéene xeexee kay laa bëgg a xam niñ ko bëgg fa xeexee wax naa la benn parce que du conférence de presse kese ak kii nii déedéet moo tax wax na ne ne de noonu bu ñu joxulee dinañu sitting te am nañ yeneen i mesure coercitive parce que dëkk bi dëkk dëkk yoon la mhm. waaw parce que bu ñu defee fu ngeen di sittingee eh? euh, fii ci euh, euh, fii cité des eaux wala. era na du erano mu ngi nekk ci VDN bi. Mhm. foofu la ñuy dem ñu sitting toog toogaan ñaxtu. Hmm. bu ko defee ñu jox na sunu. xarit sitting euh, ngeen koy def. Baba Ngom sitting bi jàppaguñu ko waaye dañ ne dès lundi. Hmm. ñoom dañ ñu jot sunu correspondance. sunu jotee sunu correspondance lundi ñoom suñu réagirul ñun dinañu wootewaat bu wax ne ban jour la ñuy def sitting bi te incha allahu rabbi toute la presse. Hmm. du Sénégal wala du monde dinañu ko yëg. mais Sen'Eau question bi sax xam naa du man maa laaj mais askan wi la. lan mooy problème mu Sen'Eau am na ñu naan. Euh, parce que bi bi bi bi xëccoo bi amee ci diggante euh, Olivia xawma Suez ak euh, Sénégalaise des eaux xëccoo bi métti woon na mhm. bañ jox ko waa Suez ñoom ñooy seen Sen'Eau su fekkente ni noonu la sax mhm. mais sénégalais yi dañ doon xaar un service de qualité ak Suez parce que dañu souffrir ak SDE Euh, dem nañ ba ne waa comme que ñu ngi ak SD pendant des années et des années yàgg na nañu essayer keneen xool ba xam euh, maanaam dinañ am gestion bu gën a baax ci wàllum ndox mi euh, file ci Sénégal mais actuellement question bi may laaj mooy qu'est-ce qui se passe à Sen'Eau parce que askan wi amuñ ndox ah, parce que élément bu gën a élémentaire sax bala ngay wax leneen mooy askan wi mën a am ndox surtout fii ci capital bi ubbi sa robinet am ndox ça c'est un problème depuis la l'arrivée de de de Sen'Eau wala Suez quel est le problème. waaw mais problème yi euh, c'est un des problèmes defe naa euh, waa euh, Sen'Eau. ah mais fa ngay liggéeyee foog nga tontu déedéet moo tax damay tontu. dama ne la waa Sen'Eau dañ ko hérité. waaw dañ ko waaw. ku nekk xam na ne. dañ ko hérité. waaye ñu ko héritage la si SDE. non SDE daan na ñàkk ndox mais lii actuellement c'est pire. waaw mais c'est pire mais parce que la population est plus exigeante. parce que am na région yoo xam ne Dakar euh, quartier yoo xam plutôt avec SDE demoon nañ ba commencé di am ndox constamment. mais dañu gis ni Sen'Eau bi mu ñëwee loolu lépp a dagg. carrément non non non daggul est que loolu eh, eh, eh, moom la hérité carrément. am na ñu naan sax bu yëgoon bàyyi fi SDE. waaw waaw ku nekk ku nekk ni ngay gisee rek. non loolu la askan wi wax du man maa ko wax. waaw waaw moo tax ma ne la askan wi demee si seen page Facebook ngeen xool commentaire di nga gis ni dañ na ñoom suñu yëgoon sax bàyyi fi sénégalaise des eaux. mais loolu laa lay expliquer. moo tax ma ne askan wi. waaw euh, lu la neex mën nañ ko wax ndax ki bëgg dara te amu ko dina wax lu ko neex. waaye consommateur yi ñooy patron yi ñooy fay. waaw mooy consommateur yi. moo moo tax ma ne la. ñoom am nañu droit exiger parce que dañuy fay. Mhm. ñun tamit am nañu nootul devoir mooy ñu jox leen ndox en temps plein. heure bu nekk. waaye nag ku nekk xam ne ne bu fekkee ne demande bi li ñuy laaj dafa ëpp li ñuy joxe mais kon nag foog mu am déficit loolu moo tax ñuy ñuy séddale ñuy séddale ndox mi. ay nit lañu dañuy séddale ndox mi bu ko defee ku nekk. nu ngeen koy séddale non ndox mi. xam nga ndox dafa tayal. waaw instant bi Baba Ngom ñi lay déglu bëri na de. ñi may déglu bëri na waa Ndakaaru sonn nañ de. déedéet waa Ndakaaru sonn nañu waaye waa. Ndakaaru am na quartier yoo xam ne ça fait des mois depuis l'arrivée de Sen'Eau laa la wax amuñ ndox. déedéet wala am na ñoo xam ni guddi ba guddi la ñu am ndox. effectivement moo tax am na ñoo xam ne amuñ dara. loolu moo tax ma wax am na ñoo xam nag yëguñ sax ñàkkum ndox mi ñoom ñu ngi am normalement ndox juste dañuy wax pression bi dafa wàññeeku. par mhm. rapport ak Sen'Eau. loolu mooy situation bi. am ñoo xam ne amuñ dara. am ñoo xam ne guddi ba guddi la am am na ñoo xam ne ñu ngi am normal mais gis nañ ni pression bi dafa wàññeeku bu baax suñ ko comparer ak SDE waxuñ tamit euh, que euh, sd e service bi mu doon def service bu baax la. Mm-hmm. amoon na ay gàllankoor moo tax peut ñu essayé ak seen Sen'Eau. waaw loolu mooy mooy li ma lay expliquer xam nga. Euh, léegi seddale bi nga doon wax sànq nu mu demee. dama ne séddale bi. ay nit ñoo koy def xam nga ndox dafa tayal te fa muy jóge dafa sori. bu ñu ñëwee nit ñi ñoo koy pousse pour que nit ñi askan wi jot si. mais askan wi tamit dañu am yeneen i exigence mhm. tey bu jëkkoon xam nga mhm. nit ñi mhm. bu jëkkoon ñun sunu kër defe naa benn douche la ñu amoon bu paree dañuy root robinet bi kenn dem waaye léegi ku nekk sa biir kër am nga toilette intérieure yooyu yëpp ay facteur la yoo xamante ak ay consommation bi day day bare nit ñi tamit ku nekk di consommer exiger exiger nu seen Sen'Eau nag tamit ñu ngi def li ñu fi fekkoon yokk nañ ko par l'intermédiaire de l'État en la personne de la SONES gas nañu ay forage yokkaat nañu ndox mi waaye nag problème bi lii ko war a régler dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. Hmm. mooy troisième usine KMS. KMS ak centre kii bi ñuy def désalinisation bi loolu bu amee je pense bien en temps plein. Eh, yéen yéen yéen lii ngeen ñu doon wax ci temps wu e. non loolu lañu leen di wax tamit du ñu xam nga. seen o ñëwaat bëgg di ñu wax. même déedéet mais Sen'Eau joxe na ay dates yu date limite. mais yan date lay. déedéet dama ne waxul lu concret lu consommateur bi mën a jàpp. déedéet dama ne la la d'ici la fin de l'année. waaw. avec le troisième usine bi euh, KMS trois je pense bien que ne nit ñi dootuñu souffrir. mais est-ce que euh, fi may waxee maanaam sd dafa tële woon bañ xam ne dafa tële. Mhm. Euh, coupure yi bari na ainsi de suite il y avait beaucoup problèmes. Mhm. mais seen Suez moom bu ñëwee di xëccoo ne day gérer ndox mi. Mhm. mais moom war na préparer wu en conséquence. mais ko waroon na mën a préparer wu su yegsee rek sénégalais yi sentir changement carrément. mais noo xam ne booy mais nga ñëw mel ni sax fa fa SDE tolloon da ko kase. mel ni ku recommencer à zéro. déedéet kasewuñu moo tax dama ne la yow booy soog a ñëw ci biir kër. waaw mais li ñu. non mais ñoom dañ doon xëccoo. da am na moyen pour gérer ndox bi. non non am nañu ay moyens plus de moyens. offre d'appel la woon. waaw euh, euh, d'appel la woon. Euh, mais ñoom ñu gagné ko. waaw mais soit siège. mais kuy xëccoo kay mbir. waaw kon kay war nga préparer wu. mais nga nga nga wane ni carrément war nga mën a gérer. non non préparer wu nañu en conséquence waaye nag. mais janvier ba léegi. non non mais gens mais tamit ku gan. gan bu ñëwee si kër kay. mais mais mu installé bu dafa xaw a yàgg de. non mais. d'ici la mais li ci la wuñ ko de. non non kenn. jéem jéemuñ ko sax ganale. non non bëgguñu sax ko ganale. parce que maanaam sénégalais yi dañoo ndox la am parce que ndox mi ce n'est pas gratuit. di fay mënoo leen ko jox. déedéet nit ñi ngi fay waaye di ko jox waaye dama ne bu fekkee ne. léegi yow joxoo leen ba woo rek lañ ko gisee. non non amul ku ku ñu la joxul ndox. te nga jox joxuñ la ndox ngay fay. déedéet loolu mënul am. parce que ci ñëw parce que le compteur. waaw mooy mooy moo nekk diggante. Mhm. consommateur bi ak société bi. lu jaar ci compteur bi compteur bi da koy marqué lu mu marqué tamit ñu moom la ñu lay fayaxu. Mhm. fayaxu fi kenn lu mu marqué wul. man nag newul ma fi waa seen o waaye je travaille. à la Sen'Eau. donc dama lay non non Sen'Eau nga tontu ci. liggéey. non dinaa la tontu loolu moo tax ma tontu la. xam naa ci lu bare. parce que man je mm. suis un damay dem si compteur yi. pendant vingt ans. Mm-hmm. donc compteur bi moo nekk entre la société. ak le consommateur consommateur bi bëgg consommer. mu jaar si compteur bi ñu fay ko. Mm-hmm. consommateur bi nag bu bu consommé wulee. Mm-hmm. jaarul si compteur bi du fay ndox. Baba Ngom euh, ki nga xam ne presque toog na. minuit ba minuit léegi lay am ndox. Mm-hmm. wala une ba une di du matin mu root cinq heures six heures ndox bi dem. kooku doon fay euh, temps normal bi nga xam da doon am ndox vingt ndox vingt quatre heures sur vingt quatre. daan na fay peut-être vingt mille francs. pendant des années dama joxe exemple vingt mille la doon fay. Mhm. Euh, seen oo ñëw depuis janvier c'est c'est comme ça seen o ñëw. Mhm. yow ndox minuit ba minuit ngay am ndox. Mhm. ba ba ba six heures du matin. ndox bi dem. donc si diggante boobu ngay root peut-être teg say réserve par exemple. peut-être kooku bu fekkoon da doon fay euh, vingt mille francs mën na ne ah man de kon sama facture bi xam naa du cher xam naa dix mille laay fay so wala cinq parce que aw ma ndox. mais avec o ngay xaar yow sa facture wàcc ñu gis ni seen o lieu que facture yi sax wàcc parce que nit ñi amuñ ndox normalement mais facture yi da ngeen ko tripler euh, am ñoo xam ne sax neen seen facture dañ ko multiplier par cinq am na ñu naan est-ce que sax machine yi nekk seen est-ce que amuñ problème comment se nit yi amuñ ndox ba pare facture yi au lieu que mu wàññeeku facture yi gën a cher maanaam loolu sax logique daf ko nanguwul nee naa la ki doon am ndox normalement mhm. di fay vingt mille francs pendant des années mu xam mu dem ba maîtriser consommation seen oo yegsi guddi ba guddi lay am ndox euh, zéro heure six heures du matin kooku au moins sax mun na ne ah man de kon weer bi xam naa dix mille lañ may indil mais seen oo day ñëw indil ko benn cinquante mille tegal ko si kaw ta yi xam nga euh, yow yow tontu te loolu c'est c'est général déedéet Ndeye Comba yow tontu nga sa bopp nga ni na ñu dem nañ di waaw moo tax ma a la yow tontul nga leen xam nga lan moo tax waaw nga tontul leen waaw kii doon fay euh, bi mu doon am ndox waaw da doon xaar ba soxla ndox waaw dem ubbi robinet dem root mhm. waaye kii nag daf ne dafa yaakaar ne du am ndox donc day day denc ndox mi li ngay denc da nga c'est déjà consommé. denc non non. en kay da koy yow ki nga xam ne bëccëg day am consommé ndox. su bëggee foofu su bëggee togg togg. su bëggee sangu sangu tu tu consomme. déedéet déedéet loolu. mais kii day xaar rek ba ba ba minuit. mu daal di root quelque part. am mu denc mu denc ndox mu bare. loo xamante ne wóor na ne mënu ko consommé benn fan. waaw mais loolu loolu mënul yokk ah, consommation day yokk consommation. parce que yow li nga waroon a root xoolal ba waroon a root benn siwo pour pour sangu si. yow nga root ñaari paan pour denc ko ne suba da nga yaakaar ne du am ndox. waaw mais ça c'est de l'eau loolu la nit ñi mais yàqum ndox mënu fa am. en ah, kay dañuy kooku day réserve teg te li mu teg da koy sakkanal parce que xam na ni seen eau du ko jox ndox moo tax ma ne la donc li mu naroon a. mu root sax du du ko yàq baaba. parce que xamul ba xam xamul ba xam seen eau suba dana ko joxaat. même heure bi ndox ba léegi. wax ma ne day yàq ndox. déedéet wax yàqul ndox dafa root loo xamante ne. soxlaa ko moo tax mu denc ko mais loolu mënu yokk consommation. Ah, parce que nit ki toog na pratiquement peut-être trois heures de temps lay am ndox si si si si guddi gi. wala mais trois heures de temps yi bu fekkoon ne da ngay am ndox temps plein. si trois heures de temps yi c'est sûr que ne doo dem robine bi à tout moment. waaw waaye nag da nga yaakaar ne suba mm-hmm. doo am ndox. li nga waroon a consommer si euh, benn fan. da nga koy consommer nga da nga koy root. moo tax ngeen ngeen jël facture yi nit ñi multiplier ko par trois quatre déedéet man yi ma la waxoon léegi facture yi kenn multiplier ko. dama ne la compteur bi mais loolu la cons non nit ñi ñoo ko wax loolu. lii bu doon émission interactive di nga gis consommateur danañ dugg wax la ko. waaw kay man ñu ma ko wax. waaye tamit lu mu bon bon. man xam naa si ne compteur bi. mais man li ma wax nii waxuma ko. parce que mais loolu laa gis. non non man dama koy dégg tamit. man je suis que facture yi dañ ko dañ ko gonflé. déedéet man je suis un consommateur. waaw j'ai mon bordereau sans AIM. waaw mais je à nu mu tuddati. Hmm. à la ZAC de Mbao. Hmm. damay fay ndox comme ñoom ni ñuy fay ndox. kon nag damay yaakaar ni compteur yi. Hmm. mooy sunu moo nekk sunu diggante te compteur ndox mi yokku si kon nag ku nekk la nga consommé. mu jaar si compteur bi lañ lay facturer. mais kon lan mooy expliquer. factures yi ñu triplé wala multiplié ko par cinq loolu lan moo koy expliqué tamit baba li ngay expliqué non li nga parce que root guddi gi moom loolu déedéet li may expliqué wax naa la ko mais ñi nga xam ne amul ndox nag am ñoo xam ne amul ñoom tey di am facture ku amul ndox doo am facture bien sûr non ñooñu la seen facture gën a cher déedéet amul maanaam ñi amul ndox sax ñoo gën a cher les factures déedéet euh, andi si ay exemple amul ku amul ndox ma ne bi lan moo lan lan mooy entraîné euh, compteur bi di daw Euh, moo moo tax sax ma la poser la question. déedéet loolu moo tax est-ce que yéen seen ni ngeen di relever ça ne pose pas problème am na ñu ne est-ce que xanaa seen o seen machine yi dañu dof wala dañu am. problème non non non machine yi à à kii nu mu doonati index la index yow da nga koy gis mën nga ko liiral sa bopp yow bu fekkee ne kii relevé dafa juum boo ñëwee dañu xam ne yow da nga juum ñu ñu. wala wala wala seen o dafa am ay problème bëgg euh, consommateur yi supporter. seen o amul benn problème pour supporter kii di consommateur ñun du ñu ko nangu sax parce que ñun seen o la. mais factures yi te ñooy ñooy suñuy mbokk factures yi chères yi mu tamit explication bi nga joxe Baba ci euh, période de pénurie est-ce que loolu tamit explication bu valable. déedéet mën na valable si yow. que da ngay root réserve teg que sa facture dafa war a gën a. déedéet wax ma la da ngay root réserve teg dama ne la yow bu fekkee ne li nga waroon a consommer en un jour yow nga denc ko en trois jours ah li nga naroon a root trois jours nga denc ko en un jour mais loolu. surplus la nit ñi. Mhm. problème boobu la ñu am fi mu nekk. Mhm, mhm. da comme ndox mi du am toujours. moo tax dañuy am tendance di denc ndox mi. te li nga denc tamit jaar na si compteur ba pare. loolu la amul explication bu gën a terre à terre. loolu que ñoom dañuy li ñu waroon a consommer tey euh, ñetti fan mais root nañ ko benn fan. donc loolu rek la waaye amul benn différence entre la la SDE ak seen eau lu dul qualité seen eau bi sax muy gën a yokk parce que. Euh, waa SONES li ñuy yokk ci ndox. Mhm. si ay forage mais yaakaar naa yokkuñu ko ci waaye nag les gens sont exigeants. mais kon yow looy tontu carrément si ñuy wax ni ñoom dañu gis ni factures yi dafa cher. waaw mais ñooñu. trois fois quatre fois cinq fois. wala dafay firnde li ngeen doon wax ni euh, ci bi ñuy xëccoo euh, appel d'offre bi que euh, Suez li mu proposé ci njëgu ndox bi moo gën a cher que SDE. non no non loolu loolu moom si appel d'offre wala wala wala wala différence bi bariwul. non non différence amul sax différence. Mhm. parce que ndox mi. Mhm. tey boo demee nga seet. ndox mi mhm. yokkuwul. lañu lañ ko doon liggéey yokkuwul. je pense bien que bu wàññeekuwul sax boo demee tamit si technicien yi dinañu la wax yow booy branché ndax la nga doon fay booy am branchement ak la ngay fay léegi la gën a yomb kon nag man nekkalu ma fi di defendre waa Suez. Mhm. de wala de defendre waa o wala di xarab waa SDE man la may wax mooy consommateurs yi man salaa bokk. Mhm. te consommateurs yi au fur et à mesure. Mhm. ñoom xam nañ ne euh, euh, ñu ngi leen di ñu ngi rek seeni conditions de vie yi ñu am. léegi yan solution la la la la la Suez teg yan solution la teg carrément euh, pour régler problème bi nga xam parce que sax souvent région yi quoi damay wax région yi ay euh, Kaolack Ziguinchor ainsi de suite problème yu Dakar di am si wàllum ndox ñoom amuñ ko. non non maanaam seen ñoom ñoo ni ñu amee ndox moo gën a normal que Dakar waaw parce que peut-être foofu population bi demeewul noonu ainsi de suite waxuma nag àll beek ñoom seen boobu beneen cadre la mhm. mais fii ci Ndakaaru euh, lan la Suez teg carrément pour nit yi di mën a am ndox quartier yëpp di mën a am ndox normalement constamment waaw moo tax problème bi waaw mais yan solution ngeen di andi mais solution yi mhm. ñoom la ñuy wax mhm. dañ ñëwee. Hmm. ñoom yokk nañu forage yi waa SONES. Hmm. yokk nañu forage yi drastiquement. Hmm. pour que nit ñi ñu jël volume yooyu yëpp ñu injecté ko ci circuit bi nit ñi mën a am ndox. beneen bi lii à long terme la moo doon euh, centre da kii bi ñuy def euh, bi bi kii ndox mi ci géej gi. boobu loolu ñu ko def waaye bi gën a urgent fi mu nekk nii mooy KMS 3 réalisé nañu ko à soixante di pour cent. léegi d'ici la fin de l' année. je pense bien que dina am ndox mi lu mat plus de cent mille mètres cubes dina dugat cube euh, euh, nit au moment. mais KMS 3 bi ngeen di wax dans combien de temps lay pare carrément. parce que depuis lool lool ngeen ñu. non su foofu pare le problème sera résolu. effectivement d'ici la fin de l'année. loolu sera d'ici fin deux mille vingt. deux mille vingt incha allah waaw incha allah rabbi. Mhm. di ngeen am plus de cent mille mètres cubes d'eau de plus yu ñu injecté et en plus. nit ñi tamit. Mhm. exigence bi ñu teg chaque fois ñu may leen jox leen ay citernes gratuitement loolu tamit plan la boo xam ne pour soulager les population mhm. man bokk ci population bi laa bokk te sunu quartier wala fa ma dëkk ci yeen dañu ñuy may ay loolu. loolu citerne ay citerne d'eau loolu c'est. mais citerne yi daw euh, doyul de. non doyul benn citerne mooy ñëw si quartier boo xam ne tout la journée amuñ ndox ku nekk benn bi bouteille dix litres ngay am. ñaar dem mais au fur et à mesure du doon benn citerne mm. man nañu man ñu leen autant de citerne. Mm-hmm. autant de la que la demande est forte. Mm-hmm. loolu je pense bien que ay ay conditions la pour que mën a soulager provisoirement nit ñi ñu am ndox waaye li si ëpp solo. mooy que nit ñi d'ici la fin de l'année et les mesures bi ñuy jël la désalinisation je pense bien que à tout moment mm-hmm. et en tout temps et mm -hmm. en tout lieu mm-hmm. di nga nit ñi ñu mën a am ndox temps plein léegi estimation euh, Sen'Eau ban moment lay def estimation parce que tamit souvent loolu day jur ay jafe-jafe Sen'Eau du def estimation nun du duñu estimer dañuy dañuy ñëw. parfois ñu ne compteur bi am na fu mu féete wala insi de suite ñu estimer consommation bi dem. déedéet loolu moom. wala Sen'Eau du ko def. seen o du ko def mais SDE daan na ko def. SDE tamit war defu ko xam nga lan nan nan nan lay demee. Mhm. yenn saa yi nga ñëw fekk borom kër gi. Mhm. newu fi. Mhm. mais borom kër gi newu fi nga laaj ka fa ne ñu pour ñu ubbil le compteur bi ñu les gens dañuy wax ne sama compteur bu fi borom kër gi newee kenn du ko mën a seet. après ñu jox la avis de second passage. Mm. wax la ne releveur bi ne dinaa fa jaaraat. Mm. bu fa jaa bu fa jaaraatee après mu bàyyi fi numéro téléphone boroom kër gi bu fa ñëwee. Mm-hmm. mu daf ko war a woo pour que mu ñëw. Mm-hmm. moom nag bu ko woowee. bu ko woowul ba facturation jot mais dañ koy facturer par moyenne en attendant ëllëgi si biir. bu fa waa ji jaaree pour mën a jël compte. mais lan moo tax souvent consommateur bi bu demee seenoo def réclamation surtout ci facture yu chères yi. Mhm. Euh, souvent euh, final bi rek finish bi rek moom mooy consommateur bi foog mu fay. déedéet consommateur du du maanaam dafay cher mais foog mu fay parfois ñu ne la fii la même su dee compteur bi sax yow yaa war a xool ba xam compteur am na pro waaw la déet consommateur encore mooy génne war xaalis fay. pour ñu xool ba xam compteuru euh, Sen'Eau bi baax na wala baaxul moom déjà mooy fay pour ñu xool loolu parfois bu fekkee baax na ainsi de suite wala ñu ne même bu dee fuite la tamit mooy fay est-ce que tamit terme fuite boobu du ngeen xoolaat même bu dee fuite la wala que ngeen koy teg si ndoddu consommateur bi tamit ngeen teggil ko ko parce que xam nga ni consommateur war fayloo xam ni fuite la dana métti ci moom ay facture trois cent mille quatre cent mille un million nga bëgg ko fayloo benn néew di doole ça ça fiir boobu yaakaar naa du néew di doole. xam nga yoon nun bu ñu ñëwee. maanaam am na fiir ci biir kër gi. waa kay waa kay biir am na fu toj ainsi de suite. waaw moom biir kër gi ñun. moom mu bëgg ko supporter. déedéet loolu tamit est-ce que jarul ngeen xoolaat ko. en kay jar nañu xoolaat ko loolu moo tax. ñun bu ñu laal bu ko la facturer. li mm. ñu seet pare xool lépp xool ba xam ndax lii am na wala amul parce que lan moo lan moo am ñun bu ñuy def compteur bi ñu ngi koy def ci buntu kër bi. Mm. waaye borom kër gi moo bëgg. ba cinquième étage di am ndox. donc mm-hmm. loolu lépp moom moo ko def. Mm-hmm. waaye nag du ñu jël ay sécu ay mesures de sécurité donc yow booy def loo xamante ne da ngay karale da ngay taj ak yooyu mën nga fa defar loo xam ne baax na pour ëllëg si biir mu bañ am fuite waaye nag fuite day am si biir eh, lii yow tey boo doon fay facture vingt mille nga am fuite. de cinquante mille wala soixante mille francs mais boo ñëwee waxtaane ak ki nga war a waxtaanal mu doon les responsables commerciaux dina xam ne kat généralement yow yaa ngi doon am facture vingt mille mais tey nga am facture cent mille wala deux cent mille mais mu ne la ah lii kat euh, nii nga koy fayee boo bëggee nga wax nan nga ko bëgg mën a fayee nga ne weer wu dee bu may fay sama facture mën naa si dix mille francs loolu lu ngeen si d'accord rek ngeen def ko si contrat bu ko defee moom mu denc. mais est-ce que su dee fiir la. comme ni ngeen di waxee lu lu maanaam lu jógee si euh, kiiw compteur bi. maanaam uh-huh. même bu fekkee fuite bi côté boobu CSD si Sen'Eau lay dem. mais est-ce que tamit jarul euh, ngeen xoolaat seeni terme bu ngeen demee ba xam ne affaire bi fuite la ci kër gi. Uh-huh. au lieu que bi di ko supporter parce que parfois day nekk lu métti même su fekkee da ngeen ko koy pour mu mm-hmm. fay ko c'est un problème.

ay installation yu baax yu mucc ayib yoo xamante ne au moins fuite yi dañ ko mën a éviter man dem na France. Mm. la généralement le compteurs. kii kenn du enterré fuite yi si biir mur wala quoi que soit da nga koy def d'une manière apparente bu ko defee fuite bi. bu amee bu amee da gis da hmm. automatiquement ñu ngi leen di fàttali yéen ngi suivre seen émission sociale tout la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau euh, dalal Baba Ngom nekk secretaire général euh, bu syndicat unique euh, des travailleurs des eaux du Sénégal du SUTES CNTS Baba Ngom ñu laaj la tamit ci qualité ndox mi tamit ça pose problème ñu bari nee ndox mi ngeen di joxe baaxul euh, qualité bi baaxul am na yoo xam ni sax day am yu si nekk yoo xam ni ñu am moyen sax dañuy obligé bàyyi fa ndox ma euh, dem ci buti yi di uti foofu euh, ay eau minérale ainsi pour naan ko parce que wóolootuñ naan ndox bi nga xamante ni moom ngeen di joxe lan nga ciy tontu. man loolu dama ne. et puis ça revient tout le temps. loolu ay problème yoo xam ne nit ñi dañ koy wax rek waaye ñun ñi ma ñu ñoo jox nit ñi ndox mu bon. ndox bi fu muy jógee ndox bi ngeen jox nii ndox bi fu muy fu muy chaque fois dama waa OMS laa xam nga. Mhm. dañuy contrôler. Mhm. ñun ndox mi ñuy joxe. ñun ñeme ñu ñoo. organisation mondiale de la santé. Euh, saytu ndox mi. Mhm. ñun ñeme ñu joxe ndox moo xamante ne saytuñu ko. waaye nag sa ku nekk da ngay gis ne ndox mi fi mu jógee dafa xonq ñu ne ndox mi ndox mi baaxul ndox mu xonq baax na. parce que waaw mais ndox mu xonq fa mu jógee fokkal denc. Mm. moom moo xonq rek. waaye nag ndox mu baax la ñuy joxe tax ñu am xaalis ñoom nangootu naan ndox mi. non ça dépend de. dañuy dem jëndi eau minérale ñoo teg. non non xam ñu ne ndoxu seen eau bi jaru wóolu jarul naan waaye mais parfois da nga naan sa biir bi di metti mais tey jii la majeure partie des populations. Hmm. ndoxu seen eau la ñuy naan. waaw parce que amuñu pexe. waa mais waaye gisuloo. mais ñi am pexe ñu ngi wuti beneen ndox ñi am pexe tamit gisuloo képp ku si naan. ndoxu seen o ne dafa am jàngoro dafa am malaria wala dafa am leneen. Hmm. ñoom ñëpp mën naa am yenn saa yi man bu ma amee condition de vie décente. Hmm. mën naa am tamit bu su man ma jënd ndox bu bu baax wala ndox bu leer ndox bu boo xamante ne di nga ko mën a gis kireen ak yeneen ak yeneen yeneen waaye ñun la majeure partie des sénégalais. ñun ñëpp ak les travailleurs de o ndoxu Sen'Eau la ñuy naan. mais Sen'Eau ndox bi ngeen di jox euh, askan wi fu muy jóge laa wax. Lac lay jóge Lac de lay jóge ñëw ba fi ñu transporté ko ñëw ba fi traité ko jox ko nit ñu nu naan ko kon jarul nit ñi di même bu euh, couleur bi changé wala mu xaw a am parfois odeur jarul sax ñoon ñu ñu si tiit ah, ñu di si tiit mhm. parce que ndox moom ndox mu baax la boo xamante ne saytu nañ ko yóbbu nañ ko laboratoire mais lan mooy expliquer parfois couleur yi tamit ak yenn yi siy nekk du leer euh, matière yoo xam ne vraiment du duñ xam lan la. non non non amul doon ko ko ki ko denc la parce que li liy jóge ci compteur bi ñëw. Mhm. amul loo xam ne benn microbe mën na si nekk si biir. amul benn loo xamante ne mën na jaar si compteur bi ñëw amul. donc que kaw boo dencee sa ndox fi nga ko mhm. dencee wóorul. nga mhm. fekk fa ay walanjaan na nga xam ne yow. yaa sa kër yaa am. yaa am sa sa branchement sa kii moo am euh, moo récipient bi nga ko denc. Mhm. waaye bu ko defee ba si compteur bi ba si ba si bi ñu koy euh, puis de puis robinet bi. foofu c'est sûr que ne amul benn bactérie bu fa mën a nekk. voilà euh, ñu laajaat la ci tranche sociale bi parce que ci jamonoy coronavirus bi ci début bi gisoon nga njiitu réew mi di wax ne ñoom daañu support. porter tranche sociale euh, facture Sen'Eau pour benn bi euh, bimestrement pour benn facture mhm. euh, mais askan wi ñu bëri sax dañu jàppoon ni c'est l'état qui paye maanaam dañoo jàppoon ni état moo leen di fayal li nga xamante ni ñoom ñooy moom mooy facture yooyu la parce que dañu jàppee seen bopp comme cas social wala cas sociaux waaw mais loolu expliqué nañ ko yaakaar naa mm-hmm. euh, la tranche sociale mm-hmm. waxoon nañ ko ne ñëpp ñoo koy bénéficier ba état bi moom mm-hmm. xaalis boobu plus de trois milliards jox na ko Sen'Eau pour Sen'Eau jël ko te da ngay gis euh, période boobu yëpp ku nekk sa tranche sa sociale jël nañ ko c'est-à-dire c'est de quatre plus de quatre mille mais tranche sociale bariwul quatre mille. non quatre mm-hmm. mille ku nekk da ngay seet le consommateur mm-hmm. ñaata lañu ku nekk ñu jëlal la quatre mille ñaata milliards. même ñoom lépp lañ fay. am ñoom depuis lors ah, jot nañ fi ñaar ba ñetti facture musuñ musuñ santé trans sociale mais defuñ ko seen facture et non non non trans sociale bi boo gisee seen facture mu ngi si seen expliqué am ñoo xam ne dama ne ah, bi ah, bi président defee déclaration hmm. ñaar wala ñetti facture amaan nañ ko fi ba léegi kenn mentionné wu leen ne euh, trans sociale non dañ ko xoolul lépp lañ fay déedéet dañ ko xoolul waaye mu ngi si biir lépp lañ fay déedéet fayuñu lépp boo ñu boo demee foofu hmm. boo demee di fay dañu la wax sa facture ñaata la waaye lii nga si war a. mais am ñoom kenn mentionné ko ci facture. non non boo demee parce que am ñoom dañ ko mentionné tranche sociale. 4000 francs mooy ko ak yow sa consommation ak ak ak sa facture totale. non non ñëpp defal nañ leen ko. Hmm? ñëpp defal nañ ko ñoo xam ne amaguñ ko de baaba. non non ñëpp defal nañ seetee kenn ko ci amul rek nga ñëw boo ngeen ñëwee ngeen laajte. Hmm. Fatou Diagne Kébé moo doon directeur de la clientèle. Hmm. waaw waaw léegi ñu ne corona bi dee leen raxasu ainsi d suite tamit ndox amul si jamono boobu. lool lan nga si mën a wax. mais corona bi da leen raxasu du du raxasu ak saabu. moom moo moo gën. raxasu ak saabu man dama bokk si jamono bi nit yi gën a soxla ndox. pour set di raxasu ainsi de suite jamono boobu ngeen privé leen ndox. noon non non privé wu ñu leen ndox mais dama ne la dañu manque manque d'eau. Mm. ak ne pas donner de l'eau ñaar chose deux choses différentes. Mm. dañu manque ndox. manque ndox ça ne veut pas dire amuloo ndox. Mm. li nga bëggoon amuloo ko. waaye nag la fa nekk la fa moom ngay jël. raxasu defe naa. benn setale man est-ce que yéen taxul kon yéen est-ce que yéen bokkoo leen si li tax jàngoro bi gën a law ci réew mi. man ñun yéen si waa CNO. dégg nga benn yoon. dégg na ma dama dama bokkoo leen li tax. jàngo est-ce que nekkoo leen responsable ci li tax jàngoro bi di gën a law. à tout moment parce askan wi soxla nañ ndox. pour euh, vraiment respecter mesures d'hygiène et tout. non non amuñ ko déedéet loolu bu ñu si bokkoon. waaw kon nga dégg population bi yëpp wax ñun. ñoo jëkk ji alerté mhm. man ci comité covid 19 bu CNO laa bokk mhm. ñun ñoo jëkk alerte ci Sénégal mhm. que nit ñi de mesures de barrière nii ak nii ak nii noonu lañ ko mën a defee et tamit non xam naa loolu yéen a ngi koy def di sensibiliser nit ndox mi nag doo waaw maanaam est-ce que nekkoo leen d'une part responsable ci propagation wu coronavirus bi du moment que waroon ngeen jox moment boobu askan wi ndox mu doy pour ñuy mën a respecter les mesures d'hygiène te joxoo leen ko. non non boobu laa la waxee. déedéet côté bi nga ma waxee est-ce ci part de responsabilité. non amoon na si benn part nag de responsabilité. pour ah. raxasu wala nga seet. Euh, gel alcoolique. Mhm. gel. Mhm. mais comme bii ma yor nii. mais je pense bien que ne loolu nous ne sommes pas responsables du tout. du moment que yéen a war a jox. askan wi le liquide précieux. déedéet euh, joxoo leen ko wala ni ngeen leen ko war a joxe joxe woo leen. non non nu ngi koy joxee. ñoom par rapport ak ñun ni ñu mëne. sérieusement damay wax ne ñu ngi jox ñëpp ndox waaye du tout à tout moment et en tout lieu. ni ngeen ko mënee. waaye nag mhm. ñu ngi leen di séddale ndox mi bu ko defee amul benn quartier. bu wala faneen ne man du ma am ndox en permanence waaye nag nit ñi boo fekkee ne euh, li nga laaj euh, amuñu ko li li ñuy am doyul mais dañ koy séddale tey day kumba day kumba tey boo lee ñu jox la kii am guddi kii ñu jox ko bëccëg ñun ñii nekk ci euh, fu jege sax mais ñun guddi ba guddi la ñu am ndox waaye dina terawul non dañu jël suñu ay précautions pour que ëllëg si biir tamit bu ndox ñàkkee noonu nu am boog lu nu mën a sangoo lu nu mën a raxas ngeen def beneen campagne bu am solo di wax rationalisation de l'eau parce que am na campagne boo xam ne Senelec daan na ko def pour mhm. wax yàqu courant ainsi de suite mu nekk lu baax dem ba changer sax ampoule yi ñuy utiliser pour sakkanal courant bi gis nañ ni peut-être côté Senelec actuellement am nañ une certaine stabilité de on touche du bois. Mhm. mais tane na bu baax a mhm. baax. par rapport coupure yu ñu doon dund yaa y a quelques années. Mhm. Euh, yéen naka ngeen fas yéenee def. comme que Sénélec am na lu mu def ci côté boobu ba ba réussir ko d'une part euh, rationaliser euh, utilisation bi sensibiliser nit ñi ne leen changer leen ampoule boo paree fayal sa lampe ainsi de suite booy génn sa kër il s'il le faut sa couper sa compteur sa disjoncteur débrancher prise bi ainsi de suite di si def ay euh, campagne dem ba indi tamit ay compteur woyefal nit ñi di mën a contrôler seen consommation lépp jëm si tamit woyefal mbir yi pour consommateur bi mais tamit Euh, comme que li ñu yor doyul ñu daal di koy sakkanal ba ku nekk daal di mën a am euh, Sénélec am na lu mu ci def am na ay résultat peut-être résultat actuellement ñu ngi koy dund coupure yi wàññeeku na bu baax. Mhm. Euh, Sen'Eau yéen lan ngeen fas yéene def ci côté boobu pour rationaliser nit yi ñu xam naka la ñuy utiliser ndox mi. yow defe naa Ndeye Comba doo suivre doo suivre télé lu bëri moo tax ma laaj la ko def ngeen si campagne. moo tax ma ne la boo demoon boo bëgg nga ñëw ci campagne bi boo laajoon Ndiaye Diop <laughs> boo laajoon Ndiaye Diop. Mhm. dañu xamante ne. Mhm. ñun ñu sommes au devant devant Sénélec. Sénélec maanaam yéen a raw Sénélec. li raw sax li ñuy def. waaye nag am na résultat. Sénélec am na résultat mën naa am production am. Mhm. Euh, léegi mu ngi doy. waaye ñun suñu production. moo doyagul. waaye nag loolu bu doyee pour tout le monde je pense bien que mais mais yéen a ngi rational. kii ñu koy parce que gis naa campagne bi temps yi export yi mi ngi jàll. export yi ñu ngi jàll. ñu ngi rationaliser ay tëjee sa robinet xool del vérifier fuite yi ainsi de suite chasse yi. del ko xool ak yooyu del xool si compteur yi ak yooyu yëpp ñu ngi koy def loolu. parce que parce que dañu am pénurie mm. d'eau. Mm. waaye nag bés bu ndox amee. Mm-hmm. ba ñëpp mën a amadoon à tout moment. je pense bien que ne nit ñi bu boobaa dañu xam ndax ñoom ñoo yàq ndox wala ñun ñoo leen dul woon jox ndox mu doy. Mhm. kon boobaa di ngeen ci gën a. di ngeen ci gën a insister. Eh, di ci a insister am sax ñu am ay façon compteur yoo xamante ne. Mhm. dañu dañu mel ni mën naa am. Sénégal comme genre woyofal yi. waaw genre woyofal yi. mën naa am parce que boobaa consommateur bi mooy contrôle. li muy def te forcément da koy sakkanal. da koy mhm. maa ngi am compteur waaw moo tax ma ne la man xam nga man mii sama kër. maa ngi am compteur woyofal defal. Mhm. mais nag maa ngi maa ngi koy taal par rapport ak bi mu amee besoin. Mhm. parce que man nag lool c'est prépayé. Mhm. waaw waaye nag boo amulee contre prépayé man nga ko. donc yooyu yooyu est-ce que tamit yooyu yéen a ngi siy xalaat. waaw moom incha allahu rabbi. dans la digitalisation. ah li ñu nu wax boog sunu direction li mu ñu wax. yaakaar naa dina performant euh, d'ici la fin de d'ici la ñu laaj la tuuti baaba ngoom temps bi jeex na ci wàllum politique euh, laaj la ci wàllum déclaration de patrimoine bi nga xamante ni njiitu réew mi mi ngi wax ni ay ministre am nañu dem déclarer seen patrimoine yow lan nga si wax en tant que sénégalais. waaye mais euh, loolu dafa jaadu xam nga. Mm-hmm. nit bu ñu la falee. Mm-hmm. waraloo toog sax bu ñu jiitu réew mi di la ko wax. Mm-hmm. nit bu ñu la falee nga doon nga doon goor jiite parce que ñun seize millions de sénégalais le président de la république tànn fi ay de ay ministre mhm. ak ay ñu réew mi tànn ay député mhm. mais yaakaar naa ku dem foofu da nga waroon teg sa patrimoine mhm. wax ne man lii laa am bi mu fiy dugg bi mu fi génn lii la moo moo si yokk wala lii laa am loolu dafa waroon noonu naturel waruñu toog sax di koy wax non parce que président bu ko toogee ba di ko wax rek ça veut dire que ne am na am na lu ko metti waaw parce que nit ñi. mais am na ñu naan président moom ci boppam na def déclaration. parce que defoon na ko 2012. mais président est-ce que war na def une déclaration publique parce que def na déclaration daf koy jox les autorités ñooñu ñoo ko war a siiwal mais bu ko joxee waa euh, kii waa OFNAC. waa hmm. OFNAC ñoo ko war a siiwal. ñoom bu ñu ko siiwalulee mën naa am président la waaye je sais que ku ne laa sangul sabtaar la bëgg parce set na ba kon yow d'accord nga si loolu daal ñëpp di ko def non ñëpp dañ ko war a natt ba xam alal ji am jaadu mais mais mais même yow Ndeye Comba fi ngay liggéeyee mhm. normalement bu ñu la embauché da nga waroon a wax ne lii nga am bi nga liggéeyee ba bi nga fay génn lii moo si yokkuwaat foofu loolu loolu moo transparence loolu moo leer am def di def loolu quoi comme yeneen réew yi ni ñu koy defee mais booy dugg ñu xool am booy génn ñu ne am yow xam jaadu na am ngay dugg ci dans une société wala dans dans la politique nga am sareet nga génn fi am train mm. foo jële loolu donc c' est normal. Oh, mais c' est normal question temps bi jeex na. Mhm. boo ko doon natt fii ci Sénégal syndicalisme syndicats yi secteur bu ne am na plusieurs syndicats yéen sax ci seen biir bërëbu liggéeykaay yi y' a plusieurs syndicats tey ji boo doon natt euh, mhm. syndicalisme wu Sénégal euh, avancé na avancé wul lan ngay wax. non ah, syndicalisme avancé na Sénégal. bu baax bu bu baax a baax a baax xam nga lan moo tax. Mhm. boo demee fan la ñuy nattee. Mhm. Euh, la les syndicats. les syndicats boo demee BIT. Mhm. nga xam ne Sénégal am na fa part bu important. Mhm. waaw kon nag dañuy wax ne euh, Sénégal euh, avancé na syndicalisme avancé na lan moo bon rek ci syndicalisme bi am Sénégal. mooy la profilation. parce que il y a beaucoup dans un même secteur. mais ñooñu ñëpp war nañu leen jéema ñoom ñu daje. waxtaan comme ni ngeen tasee ni nekk ay syndicats yu bari. waaw kay noonu est-ce que waroon def booloo mooy doole. booloo doole effectivement moom c'est dans l'intersyndical la ñuy boole. Hmm. waaye nag dañ ko war a def sax une organisation une fusion organique. Hmm. bu ko defee ñu am benn muy nekk syndicat yu bari dajaloo mu nekk benn syndicat. mu nekk benn syndicat effectivement. loolu war na si tendance boobu hmm. lañ jëm. loolu moo tax dans les centrale syndicales ñu ne la coalition des des des syndicats bu ko defee dañu ñu dem dema dem a dem ba nekk benn centrale. bu mm. au moins wala ñu nekk ñaari centrales yu puissant mm. ñaari centrales yu puissant bu ko defee yëf yi gën a yëmb si travailleurs waaye travailleurs yi feex ñu ngi disloqué. Mm. seen bopp day gën a alam ki kii ànd ak Ndeye Kumba kii ànd ak keneen kii mm. ànd ak Baba Ngom. Mm. mais yaakaar naa tamit a mere Baba Ngom génn dem defaat beneen syndicat génn dem beneen syndicat loolu moo tax problème loolu mooy problème yi. ñu bàyyi la Baba Ngom nga tàggatoo ak auditeurs yi wala lancer sa dernier message. waaw mais vraiment damay gërëm. Euh, mm-hmm. gërëm leen gërëm euh, rajo bi ndax tamit vraiment kontaan naa ndax. Mm-hmm. rajo boo xam ne ñëpp dañ koy déglu la. Mm-hmm. beneen bi di gërëm travailleurs yu seen eau yi. sérieusement ñoom amuñu leen fay lu ñu leen mën a fayee. parce que chaque ñun bu ñu leen woowee ñu ñëw suñ leen suñu waxee ñoom ñu dégg. Mm-hmm. dañ leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla rek tamit problème bi ñu am mu doon ndox mi yàlla def saafara ba ndox mi réalisation yëpp yi SONES bëgg ak seen Sen'Eau ñu ànd si ñu réaliser ko pour l'intérêt de population sénégalaise. voilà ñun daal vraiment lool la ñuy ñaan te yàlla na ko buur yàlla def. tamit da ngeen pare ay cité. te nu ngi non nag ngi nag pare ay sitting nag mm. loolu noonu le dernier mot pour ñu jox leen seen xaalis pour ñu delloonu suñu xaalis parce que loolu ñun ñaanuñu mm-hmm. te nag si capitalisation bi loolu la ñuy wax ne xaalis boobu la ñuy jël capitalisé parce que moom la ñu waxoon Sénégal yëpp ne leen ministre bi bi mu waxee dañ ne ko bu subaa ñun mën na nañu andi suñu xaalis parce que le fonds commun de placement ñun ñoo ko moom kon nag bu ñu demee tey juróom waa waa SDE ñu bëgg a sunu xaalis ne duñu ñu ko joxe si fonds commun de placement loolu la ñu wax ne duñ ci d'accord tey duñ ci d'accord ëllëg te ci d'accord gannaaw leer na mi ngi noonu Baba Ngom ñu ngi koy remercier bu baax a baax El Hadj Baba Ngom nekk euh, secrétaire général bu syndicat unique des travailleurs des eaux du Sénégal euh, du sut CNTS kon ñu ngi koy remercier ci disponibilité am di remercier auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h di remercier Mamadou Diawa Diallo ci technique bi Léon Paul Mendy ci réalisation bi émission bi tamit mën ngeen ko dégluwaat ci suñu site internet euh, www.rewmi.com wala ci suñu euh, chaîne euh, YouTube euh, mi officiel ndey Comba Moreau di leen wax samedi prochain 10 heures jàpp 11 ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf.